asalaamaaleykum mbokk sénégalais yi déglu rajo defaral suñu bopp asalaamaaleykum mbokk gambien yi asalaamaaleykum yéen auditeurs yi rajo defaral euh, suñu bopp ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant comme ni ngeen ko xamee rajo defaral suñu bopp wax dëgg yàlla. lépp loo xam ne laal na suñ nekkuwaay yi fii ci itali ak ci Europe wax dëgg yàlla rajo bi da ci bëgg di ko yëngu loolu la ñuy wax information pratique euh, euh, ci kàllaama euh, tubaab mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen yëgal ne wax dëgg yàlla mbas mi doy na waar xam naa ne du looloo tax mooy suñ thème programme bi tey. waaye mu ngi yokk nag contagion yi naam gaa ñi ci génn àddina wàññeeku na bu baax waaye nag ay cinq mille contagion par jour wax dëgg yàlla bëri na trop yàlla nañ ci yàlla musal génne ñu ci ak jàmm xam ngeen ne rajo defaral suñu bopp defoon nañ ci liggéey bu mag ci euh, lockdown bi biñ tëjee dëkk bi waaye nag wax dëgg yàlla feebar moom dañuy ñaan rek mu gaaw jóge fii xam naa ne looloo tax Euh, information yiñ ciy jóge yiñ ciy joxe wàññeeku wàññeeku bu baax ndaxte nag non seulement euh, activités yi reprendre nañ waaye nag mbokk yi wax dëgg yàlla feebar feebar di ko wax tous les jours euh, <laughs> dafa daw yaram ba nga xam ne lu ci bëri wàññeeku li may wax rek li may ñaan artu mbokk yi moo di ne mbir mi jeexagul. te nag dañoo obligé léegi ku kuy génn ak kuy nekk ci bureau ngay takk sa mask multu bi ne nañ kuñ ci jàpp dinañ la amende diggante quatre cent ba mille euros kon nag de leen takk mask yi waaw na lañ koy wax ci italien de leen koy takk su ngeen di dox ci mbedd mi ak su ngeen duggee ci transport yi ak su ngeen toogee ci bureau yu am mbooloo de leen ko sol wax dëgg yàlla euh, benn bi cinquante centime lay jar paquet dix bi di jar euh, dix euro euh, bureau de tabac yi dañ koy jaay waaye aussi pharmacie yi am na nag beneen application boobu xam naa ne ci ñi xarañ ci mbirum inter internet lay waxal nga xam ne danga nga ko télécharger ci sa téléphone jox ci say données su soo musee taseeg koo xam ne yore woon nañ ko daf la koy signalé loolu xam-xam mi digital la kon nag application boobu mu ngi tudd Imuni ne nañ 7 million de personnes jël nañ ko am nañ ko nga xam ne foo dugg rek daf naan la euh, diw ba nga loon démb euh, xam naa duñ wax tur yi waaye daañ lay wax daal ne démb daal nekk nga koo xam ne yore woon na am am na Covid. pour yow it nga mën jël say matuwaay dem euh, euh, euh, xool sa bopp maanaam dem def ay analyse mbokk yi yàlla na ci feebar bi jóge yàlla na fi jeex tàkk parce que wax dëgg yàlla géeyal na dëkk bi trop géeyal na dëkk bi kenn ñemeetul waaw kenn ñemeetul nag ndaxte daal feebar bi daal doy na war mbokki yi yàlla nañ nañ wax rek yàlla na ko fi yàlla jé jëlee completement li ñuy wax vaccin bi yal na ko fi yàlla gaaw feeñal pour que nit ñëpp mën di ci pikiru comme ci mbirum sibiru ak influenza lañ koy waxee fii mbokk yi bu leen sori ñu ngi dikk si léegi ñëw indi leen information ci léegi flous bi lu ñuy wax loi flous des travailleurs étrangers bu leen sori ñu ngi ñëw euh, euh, euh, faram-fàcce leen ko. waa mbokk yi yéen a ngi déglu rajo defaral suñu bopp seen xarit euh, Baye Diouf euh, depuis Milan di ñëw di leen indil rek ay xibaar yu gàtt ci mbirum loi bi ñuy waxee ñuy tuddee legge fluss fii ci Italie da nga xam ne chaque année da doon génn euh, doon na teel a génn nag ci at mi commencé ay mois de janvier diggante janvier avril la doon génn waaye ren xam ngeen ne mbas mi ak. mbirum sanatoria bi tax na ba mu tardé mu ngi door a génn le 8 octobre la le bi door a génn mbokk yi balaa ñu ci sori rek xanaa dañ leen di waxal lan mooy lejeflus lejeflus euh, ci li euh, euh, ñu koy waxeeti code de l'immigration ne code de l'immigration fii ci Italie moo ko prévoir maanaam chaque année gouvernement Italie wax ñaata nit ñoo mën a jógee bitim réew légalement jaar ci yoon ñëw jël visa ca ambassade ba ñëw liggéey si fii ci Italie doon nañ faral nag li ci doon ëpp nag ci lejëflus boobu ñu koy wax nañ wax ne rek mooy loi saisonnière li ci ëppoon ci mbirum tool yi la boroom tool yi ñoo ko doon gën gën jëfandikoo. waaye nag maa ngi fàttaliku 2011 loi boobu yemuloon rek ci tool yi demoon na ba laal loolu ñuy wax travailleur domestique ak yeneen secteur laaloon na ko waaye nag depuis 2011 li génn gum ba léegi mu ngi doon yem rek ci mbirum tool yi waaw loolu ñuy wax tool yi ak tourisme ak hôtel yi lañ ko jaglee woon muy travail saisonnier euh, travail saisonnier xam ngeen ne wax dëgg yàlla dëkk yu nekk am na fa même suñu réew maa ngi fàttaliku bañ nekkee xale ñun ñu doon def travail saisonnier moo doon ñu doon jógee Mali ak Burkina Faso Haute-Volta la tuddoon waxtu woowu te lañ doon te te ñu la doon ooyee ci dëkk ba ma dëkkoon Kaolack Ndangaan ñu leen doon ooyee buggu mbay lañ leen doon ooyee euh, loolu rek mbokk yi mooy travail saisonnier ñu koy wax donc loi bi nga xam ne moo koy prévoir chaque année di wax nombre de personnes yi war a ñëw. Euh, euh, loi boobu moo koy déterminer chaque année ñu koy wax loi flux flux des travailleurs étrangers mbokk yi donc bu ren bi yéex na génn xanaa rek dañ leen di ñaan bu leen sori ñu ñëw faram-fàcce leen euh, bi génn ren lan la wax. mbokk yi donc les flux 2020 génn na ren. quota la li ñuy wax quota maanaam nombre nombre ne lii la Italie soxla euh, mu ngi ren nag dafa yaatu li nga euh, euh, ci secteur yi mu soxla waaye nombre bi presque comme bu daaw la mu ngi toll ci trente mille huit cent cinquante personnes ci lejeflus bi prévoir na donc bu ren bi prévoir na mbirum liggéey tool ak travail saisonnier ci tool yi ak ci euh, euh, tourisme bi waaye ren yaatal na tuuti laal na yeneen secteur yi secteur ñi koy wax non saisonnier muy secteur yi nga xam ne moom la ñuy wax euh, ñetti secteur la nag benn bi mooy auto transporto trasportatori mooy ñi nga xam ne ñooy dawal oto yi chauffeur yi société yi def transport par oto Euh, ñooñu la prévoir boole na ci aussi euh, ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci euh, mbirum mason maanaam édilite yàlla lañ koy waxee construction ba noppi mu boole ci lépp luy tourisme ak hôtel kuy wax mbokk yi wax dëgg yàlla ñetti secteurs yi secteurs yi xam ngeen ne gan it immigré yi ci bëri dañ ciy liggéey. lii di dawal oto pour compte d'un tiers surtout nag ñi nga xam ne ñooy def livraison livraison de marchandise waaye aussi ñi nga xam ne ñooy tabax immeuble yi maçon yi waaye aussi ñi nga xam ne ñooy liggéey ci hôtel yi ci tourisme eh, ci mbirum tourisme rek teñ ci gën a eh, eh, seetlu ci hôtel yi ñooñu tamit ren boole nañ leen ci naam ga tourisme ak hôtel ñoom ñoo doon ànd ak agriculture mais ren comme ni nga ko waxee dañ cee yokk autotransport yi ak euh, euh, édilits yi ak muy construction mbokk yi xanaa rek ñu wax chiffres yi chiffres yi ñu wax ñaata euh, ñaata lañ ko partagé ci secteur yi nga xam ne ñoo mën a intéressé li ci ëpp doomu Gambien wala doomu sénégalais yu nekk fii ci Italie nañ wax rek doomu africain. may baamtuwaat rek ne chiffre bi total trente mille huit cent cinquante personnes la waaye nag dañ cee tànn ne lii nekk lii nekk ci mbirum lu nekkul tool dix huit dix huit mille personnes la li nga xam ne moo nekk ci mbirum tool ñoom ñu ngi ko euh, yemale muy six mille personnes ñu ngi ko euh, yemale ci euh, déet waaw dix mille personnes pour secteur. yi nga xam ne nekkul ci mbirum tool dix-huit mille personnes lañ ko prévoir ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci mbirum tool ñu ngi toll ci six mille personnes mbokk yi xanaa euh, euh, di wax rek ne réew yi nga xam ne ñoom la seen ressortissant mën a bokk ndaxte nag Italie dafa tànn ay réew ci réew yooyu Sénégal ak Gambie ca lañ bokk mooy réew yi nga xam ne am nañ accord ak Italie ci mbirum immigration ren euh, pays yooyu nag ci six mille yi dañ naan quatre mille cinq cent yooyu ci six mille yiñ tànn ci mbirum tool laay wax nag waaw ci ci six mille yiñ tàll ci euh, ci secteur euh, ci secteur agricole dañ ne quatre mille cinq cent yi mooy jóge ci réew yi nga xam ne ñoo am accord ak Italie Sénégal ak Gambie bokk nañ ci 1500 nag mooy ñi nga xam ne ñu ngi nekk di négocier ak Italie pour def accord donc au total muy muy 6000 euh, personnes mbokk yi maa ngi jéggalu lii mooy wax dëgg yàlla partage bi nga xam ne moom la Italie bëgg euh, ci 2020 bi naam gaa yéex na parce que ñu ngi ci mois de septembre rek. ci deux mille vingt bi lii lañ prévoir pour képp koo xam ne bëgg nga euh, euh, euh, bëgg nga bokk ci mbir mi di fàttali rek ne du liggéeykat ba nekk bitim réew moom mooy def demande waaye datore di lavoro maanaam employeur bi nekk fii moom moo naan soxla na ma Demba wala ma sàmba ba nekk ci Sénégal def demande bi su demande bi boole ak passeport yi ka nekk Sénégal wala Gambie mu def demande bi sunu loolu ñuy wax autorisation bi ci génnee mu yónnee ko ka nekk Sénégal wala Gambie kooku dem ca ambassade Italie ba nekk Sénégal te boole tamit Gambie te nekk ca Dakar nga dem fa demande visa soo ñëwee mu defal la contrat ngeen dem signer contrat ba noppi commencé euh, liggéey bi ñu jox la permis de séjour comme niñ ko waxee rek mbokk yi. liñ ko yaatal ren moo di ne boole nañ ci mbirum si euh, edilitsia construction boole ci aussi mbirum euh, transport aw euh, autotransport autotransport xanaa rek ñuy fàttali ne autotransport bi nag nee nañ képp koo xam ne danga am permis boo xam ne mu ngi yem ak permis ci yee fii ci Italie te nag permis ba nga amee sa réew soo ñëwee Italie nga mën ko Euh, euh, convertir loolu nag xam ngeen ne dàq na suñu waa réew ndaxte permis Sénégal moom kenn mënu ko convertir fii ci itali pays africain yi nga xam ne am nañ possibilité ñetti lañ muy Maroc muy Algérie ak Tunis kon nag ñoom dafa mel ni mbir moomu ñoo ko moom mbokk xanaa rek li ñuy terminer wax demande yi euh, demande yi mbokk yi pour def ko ci site internet lañ koy defee ci site internet bu ministère de l'intérieur te képp ku koy def il faut nga yore speed speed mooy caabi yi lay may nga dugg ci ci site yi gouvernement bi pour mën a def demande wala pour mën a caytu as mbir bi nag bi ñuy defee demande bi mooy site bu ministère de l'intérieur ngeen xam ne mbokk yi ci affaire yi sanatoria yu ci bëri ci site boobu lañ ko defaree. sanatoria mooy loi bi doon may kayit diggante mois de juin ak août te wax dëgg yàlla lu tollu ci deux cent mille personnes déposé ci lii nag mbokk yi wax dëgg yàlla si plus limité xam naa ne ñàmbaas nañ ci secteur hôtelier wala secteur construction ak secteur transport xam naa ne wax dëgg yàlla lañ leen euh, euh, euh, beddi woon ci mbirum sanatoria moo tax xam naa ne secteur yooyu yëngatu ci laaj pour gouvernement bi boole leen ci parce que xam ngeen ne dawal camion wala camionnette wax dëgg yàlla li ci ëpp fi mu nekk nii étranger yi ñoo koy def fii te nag mbirum Covid bi dafa daf xeet gi nekk Roumanie Bulgarie ñoo ci ëppoon ñu wàññeeku trop ñu soxla nag ay liggéeykat ci secteur boobu mais comme ni ma leen ko waxee ñun sénégalais yi dafa mel ni bedd bokkuñ ci ndaxte il faut nga am permis boo xam ne ci la nga xam ne soo ñëwee da nga koy convertir fii euh, euh, ci Italie. mbokk yi donc demande yi ñu ne ñu ngi commencé euh, euh, site bi ubbeeku na ku bugg a préparer demande mën nga dem ci site ministère de l'intérieur depuis tey waaye nag euh, demande yi ñu ngi koy présenter su fekkee ne ci mbirum bu nekkul tool maanaam ñetti secteurs yi ñu wax muy non stagionale ñu koy wax non saisonnier muy muy agricole muy muy tourisme muy construction muy. auto autotransporti autotransporti lañ koy waxee ñooñu seen bés mu ngi commencé euh, le 22 octobre 2020 ñu koy wax click day maanaam bés bi xam nga suñu waxee mille personnes ñi njëkk a rek la ñuy caytu seen dossier ba mot kon nag képp ku ci à partir de 9h site bi yàkkamti la rang la xëcc la da <laughs> concurrence la maanaam ay ay ay rawante la. ndaxte wax dëgg yàlla nit ñi njëkk a dugal rek ñoom la ñuy considéré mbokk yi ñi nga xam ne nag ci mbirum tool yi te ñu fàttali ne mbirum tool yi six mille personnes rek la ñooñu mu ngi commencé le vingt sept octobre lay koy commencé dugal euh, waaye nag wax dëgg yàlla xam ngeen ne six mille personnes moom ak euh, dix huit mille personnes fële euh, loolu moom luy gaaw a jeex la leneen li ci des. pour mu mot trente mille cinq cent mu ngi concerné yeneen secteur euh, yu mel ni ku fi amoon jàngoon ba am diplôme war a convertir sa permis de séjour étudiant nga permis nga convertir ko per lavoro maanaam pour travail am na yeneen yeneen secteur nag yoo xam ne wax dëgg yàlla sori nañu mooy lii mel nii ñi ñi euh, ñi nekk entrepreneur bëgg a investir xaalis bu bëri Italie Italie loolu da koy favoriser parce que borom millionnaires yeeg milliardaires yi sooy investir fii dañ lay jox kayit te ci quota boobu la bokk boole nañ ci aussi ñi nga xam ne ñi nga nekk beneen réew lu mel ni Espagne am fa carte de séjour bëgg a ñëw liggéey si fii am fii liggéey bëgg a transformer sa permis de séjour en sa carte de séjour bu Espagne nga bëgg ko transformer en permis de séjour italien bu ci ci quota boobu tamit boole nañ boole nañ leen ci. ñi nga xam ne aussi nekkoon nañ bitim réew euh, des formations ci mbirum italien langue italien ba am niveau yañ ca toll ñooñu tamit boole nañ leen ci mbokk yi donc lii mooy xibaar bi di leen wax ne wax dëgg yàlla euh, képp ku ci soxla dara soo ñëwee suñ service dinañ la teg ci yoon ba noppi loolu ñuy wax speed speed mooy caabi yi nga xam ne moo lay may nga ubbi site gouvernement bi ñun suma biro fii ci Milan muy centro service migranti dëgg yàlla ku ci soxla speed soo ñëwee mën nañ la ubbil speed speed du pour mbirum flux rek wala sanatoria daf lay may yow ci sa bopp loo bugg a xam ci sa mbir ci mbirum kayiti nguur gi soo duggee ci site yi mel ni agenzia dell'entrata wala nga dugg ci INPS wala nga dugg ci INAIL wala nga dugg même ci communes yi communes yi léegi Euh, résidence Milan jaratul ngay rang ca commune ba dëgg yàlla taxawal nañ ci benn service boo xam ne ku soxla résidence jarul ngay dem commune soo ñëwee mën nañ la defal demande waaye nag yemul ci loolu certificat de résidence tamit mbokk yi fu nit mun a nekk ci euh, euh, Italie soo soxlaa certificat de résidence jaratul ngay dem rang ci commune yi wax dëgg yàlla ci cité commune de Milan bi mën na délivrer. Euh, certificat de résidence fu nit mën a nekk ci Italie même soo dëkkul Milan waaye suñ ko jaaree ci site bi mën nañ la génneel sa certificat de résidence mbokk yi donc loolu euh, mooy euh, li xew ndax mbirum Covid bi wane ne nit ñi mën nañ toog bañ a bouger lépp ci internet te wax dëgg yàlla ñu nekk di ci taxawal lu ñuy wax sportello online digital online sportello online muy guichet digital boo xam ne lu nit soxla rek. jarul ngay bouger fa nga toog soo yónnee këyit yi nga xam ne yore nañ ko dinañ la mën defal sa demande ba noppi këyit bi muy bi nga soxla ñu yónnee la ko ci sa email wala via poste mbokk yi donc ñu ngi leen di nuyu lii mooy rajo defaral suñu bopp seen xarit Baye Diouf depuis Milan ñu fanaan jàmm ba suba ak jàmm jërëjëf.